salaamaaleykum salaamaaleykum mbokki Fass maa ngi nii si angalu kër sëñ Moustapha Sy Djamil bu wisee rek gis nañ ni muy mel waaye lii nag ba kañ. fii bopp la ba ndox bi nii la amee waaye yéen yëpp ndox la yëpp partout foo mu jaar ndox la. Colobane moom du ko xoolal wax nañu gisoo Colobane. kenn amul fu muy jaar ndax doo gis ndox mel ni di dugg. man dama war. gër yaa ngi nii ñoo ngi fees dell Fass dafa bëri xale. gisuñu service d'hygiène gisuñu sapeur pompier gisuñu maire gisuñu kenn ku ñuy jàppale suñu ndox mi. waaye yow dimbale leen ñu. Ah? seen bopp lañ fi nekkal. Ah. Ah, seen bopp dong fi nekkal. doy na waar ci fal nga toog. lii dafa war a jeex xoolal bale ci gars yi teg fii tataa yu lii dèjà amul hygiène amul dara. ñun sax ñoo volonté wu teg circulation bi bañ pépin am. waaw parce que sànq ba tey xale yaa ngi nii mënuñu jàngi seen Moustapha football baa ini nii mi ngi fees dell mënuñu entraîner xale yi xale yaa ngi nii jànguñu mënuñu jàng bu tawee rek xale yi duñu jàng y' a plus de 800 élèves fii dafa doy waaw. nit ñi kuy traversé fii yaa ngi mbaras di ko di daanu foog ñu génn ñu taxaw di pour aider gars bu ñuy génn bu kër kër di dugg ci ñu mën dafa daanu la gis nga. ñun waxuñu mu mu taw ñu ñëw taa wala ñu ñëw ŋàcc on a plus besoin de ça li ñu soxla mooy que ñu ñëw def fi solution définitive. ñun fii dañu yeewoo fii dañu juddoo fii dañu màggee fii dañu yaroo koñ bu defee bu tàkkee ñun ñooy tàkk. waaw pare ngeen ñëw ngeen wax waaye taxaw fee di wax. koñ bi lu ñu métti dañ fiy wax ku fi liggéeyu. billahi wallahi taala dina métti torop. adduna bi yëpp dinañ ñu dégg nag fi mu nekk nii xoolal fii ba Bente ñee dafa fees dell ah ah. lii dafa ñaaw bu duggee kër xabru sëñ Moustapha mu ngi fees dell ak ndox ah loolu pour lan la xabru kër sëriñ buñ buñ buñ ne woon tey day taa état bi bu xëyee jël na si solution bi mu war mais tey depuis des années depuis Mathusalem fii nii même chose lee lañ fa def bassin de rotation ñoo ko utal seen bopp ut pompe pour génnee ah dafa ñaaw c'est pas normal. gis nga jumaa jaa ngi nii. xabru baa si biir jumaa ji ndox mi yëpp si boor boobu lay jóge gis ngeen si biir niñ koy ase waaye fekk ndox mi dem si biir si mbedd mi demul lii du dem te li ñuy fàtte ne mooy sëñ Moustapha mooy taw sëñ Babacar. chaque année répétition chaque année répétition ah ñaari canal wóor na ngay am problème mu ndox ah wala ñoom ñu ñëw naan ndox mi c'est quoi le problème. dañu oh, fonk quand même ah ah booy nekk fii tout près du taa bi naa nekk euh, du taa Fass di ñaari canal la ko wër ñaar fii kër yëpp inondé kër sëñ safaa rek laa leen wan mais boo xoolee leen kër yi yëpp doyam waaw moo tax ñu baare ko nii lan la ñuy xaar dañuy xaar politique jot pour que ñu ñëw nax nit ñi dem seen yoon non non on a plus besoin de ça fii kenn dootuñu naxati affaire bi dafa war a leer il faut que fasse ñu yeewu tamit ah il faut ñu yeewu li dafa war a jeex état bi nañ wax loolu dafa war a jeex ah il est temps il est temps ngeen jox ñu plus de considération ñun wa face sonn nañu je vous remercie